jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte mbokk yi comme ñu leen koy defalee saa su ne fépp fu làmb nekk wasaare làmb bépp information làmb bu mun a am ci àdduna dinañ leen ko jéem a dégtal euh, indi leen ko bañ bokk ak yéen tey nag ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy yaraax léegi nag ki ñu fi woo di DKR production ñu nekk ay xale yoo xamante ni euh, dañu ñëw ci làmb euh, wolof daf ne ku yokkul yaa wàññi ba tey yéen a ngi gis combat yu mag yi nga xamante ni jot nañ ko taxawal diggante ne Nékorél la ak ki nga xamante ne mooy mbëru géej marle Marley ñoom ñoo ko taxawal loolu rek doy na affiche ak yeneen combat yoo xamante ni tëgg nañ ko Malick Ndiaye 37 fou ak xale bi nga xamante ni mooy Bou Siteu ñoom ñoo ko taxawal euh, ku ci mel ni euh, wulli wulli waat ak euh, ak Adama Diouf ñoom ñoo ko taxawal ak yeneen combat tey nag ñu ñëw fi pour dégtal leen ñaari ndaanaan yoo xamante ne ay champion lañ ci làmb ku ci nekk am na ci branche boo jógee am foo jëm kenn ki di Kalmundur Kalmundur mi ngeen xam champion bi kenn du ko présenté mu war a daje ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène Junior euh, ñu doon ñaari xale yoo xamante ni ñaari ndaanaan la ñaar ñoom ñaar ku ci nekk dugg si na mel ni ne tey la tabaski ci ñoom ndax ñoom ñaar ku ci nekk def na yëre olof sañse waaye Calme Ndour ñëw na indi ji jikkoy séeréer ji ñëw na yor benn euh, li nga xamante ne mooy euh, bant bant mi nag xaw ma bant njuur la xaw ma bant lan la ñu ngi ko xaaw def ci ay der mu am li nga xamante ni mooy ay pettaaw loolu yëpp ci aadab làmb la moom ñëw na teel a dugg si bi mu dugg si qualifié toog na fekk adversaire am ñoom ñaar bi ñu dajee nuyoon nañ saafonte wane ni làmbkat carrément sport la euh, day boole waaye warul tàqale kon ci kanam tuuti dañ leen dégtal ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ni mu dugg see sëñ Basiru borom mbég nektar ama seen maa lay siyaar man damay namm waa Wassare billaay dama leen di namm ndax seen waxtaan dafa neex non yéen dama leen di namm ndax mi bu dul dara tamit lu tax man may namm seen waxtaan mooy que bu bu may def seen interview damay gis sam ndax Jurbel surtout daf ne dompat sax ci sot la bokk. merci bu ma kenn ay doomu Jurbel bas moo tax. Hmm. bas moo tax bu may def ak yéen xam nga émission dama ciy gis sama bopp ndax bas ndax ñoo bokk Jurbel waaw. Euh, tey ñu ñëw ci sa signature contrat sa diggante yow ak Calme euh, lan moo la loo combat bi. waaw combat bi jël naa ko parce que Calme Ndour mbër la champion la làmb mooy suma métier waaw maa ko raw si làmb raw ma ko si làmb waruñu bëri war nañ bëri. xam nga champion la champion la nit ñi xam nañ ko xam nañ ko yëggagul yëgguma au sommet moom tamit yëggul au sommet kon normal la ñu bëri quoi dara nekku si waaw dara nekku si. Euh, combat bi bi ñu koy gisee ci ñaata ñaata fan la toll wala ñaata weer la toll wala nan la yomboon na. non non yàggul peut-être màggal bi la rek. Mm. peut-être màggal bi la moo doon wax ak grand Pape Sarr ma koy nuyu de passage di nuyu Alain xam nga ñoom ñaar ñuy ay grand yu baax maa leen di siyaar de di leen jàmm di leen ñaanal suñu borom yeggale ko peut-être bi la rek après xam naa nice quoi. Euh, yéen ñaar kan moo ci soxla sa morom parce que for naa ci wéy bay am na ko ci laaj moroom non laajuma il pare que yaakaar naa laajuma de laajuma te man tamit du ma la wax ne la laaj naa ko ndax xam nga ne loolu yéenawul maanaam laajuma il pare que dafa yoroon avance su gars yi rek xam nga gars yi tamit bëgg ma tëgg man tamit ma bëgg a bëre kii wut fi ñu fanaan ak ak ak xaw ma ku ko ni ko olof di wax. ku ko merci voilà xam nga accepté liñ liñ bëgg ñoom tamit ñu nangu ma li ma bëgg xam nga ñu taxawal suñu combat yàlla yàlla suñu borom dogal ba cat ba ñu dugg suñu diggante te yàlla suñu borom may ñu ndam lu sedd guy ci barke Cheikh Fall loolu la ñu ñaan yàlla. parce que dafa mel ni euh, ñiy xool làmb xam ko xam na ni yéen ñaar combat bu neex la mais dama seetlu ni ñaari poids lourd la te euh, ñaari poids lourd d'ailleurs euh, fu ñu dajante ñoom ñaar xam naa ni safara dana bari. waaw man de daanaka ma naan miin naa làmb làmb làmb làmb tàkk-tàkk miin naa moom naa ko. bëri naa fi ñu dóoram ba may bëgg a dee bëri naa fi jël ay coups yu métti barki sëriñ Bamba ay coups yu métti suñu borom defal ma ndam bëri fi tamit jël ay ñu daanu waaw làmb la am ndam baa ñu euh, suñu borom li ma la mën a daal mooy barki Serapha am ci làmb wala ci xeex. ci wala ci préparation. ci lépp ci lépp am na xeex dañuy bëri. dama moom moo la fi jiitu. mais bi mu ñëwee fekk la nga toog dafa diggoon génn mu génn ñëw nuyu la ngeen saafante mais saafante boobu bu ngeen ko njëkkee tamit man xam naa ne du ngeen ko mujjee. waaw même bu dara tamit nit la may nit. jullit la may jullit il yaakaar naa jullit la. Euh, jullit euh, waruñu am ay xaarma yàlla parce que li ñu boole ñëwagul li ñu wax naan saaga yàkkamtee xeex la dañoo war a jëflante man ak moom incha allah bu dat bu ñu amee dat. jarul ñuy nekk fii di xiroo ko ngaay wala ku ne di di di di aju di teg fale dama koy dama koy félicité ci loolu mu def d'ailleurs ñëw na ma dugg si génn ma jug nuyu ko waaw man loolu laa gëm man dañu may wax sax ne ma làmb newul ci man maa bëgg làmb rek may làmb newul ci man sànq am na ku toog fii posé ma ko mu ne ma Calme nee na musoo kawoon nit ma ne ko man ba ma dee mbër ba tey di dem si mara di ñaanlu saa soo ma joxee na ma ñaanal lii mosuma ñaan yàlla kaw ndam nag dama koy ñaan mosuma ñaan yàlla kaw mbër. seen diggante yéen ñaar est-ce que pare nga pour samp jaaga taxaw ak Kalmadour parce que ñu bari nee nañu euh, moo moo la sut relance bu ngeen taxawee xeex xeex bi du la arrangé que ñeme ngaa taxaw moom samp jaaga xeex moom ci làmb. en tout loolu ci ma lay dépendre li ma la mën a xamal mooy dinaa def li ma arrangé ba mu dam <laughs> ah? non non naa def li ma arrangé ba mu dem rek. incha sa diggante yaa bourse bourse lépp dañ doon wax kat la mais bi nga ñëwee ab na stratégie boo teg ba ñu ci bari ci làmb ji keroog xàmmee wu ñu bourse keroog xam naa la de. maa ngi bu mag. Hmm. waaw il paraît que maa ngi soog a génn di wax loolu nii si moom. du lu du lu mauvaise nag ah. dañoo mus nekk may préparé malam ñaani. Hmm. mu ne ma mbër bu la gëdd ngaa yow la neex. laa mës a nekk nañ maam moom xam na samay capacité xam na sama corpulence mu ne ma sant de bi nga am ak taay bi nga yor mbër bu la gëdd nga arrière yow la neex. mbër dina fois. ñu gëdd stratégie la. waaw mun mun na nekk ragal sax des fois parce que des fois nga am ñoo dajal ni sama waay yu xor la ñuy yor. <laughs> bëri dañ maa jaaxal dañuy teg rek teg xel ba mais ma lay jaajëfal bu baax. kontaan naa ci yéen xam léegi ñu ñëw ci siyaar. waaw incha allah kontaan naa trop vraiment barke sëñ Ba maa leen di siyaar a baax di leen jox seen wàccuwaay. Calme Ndour nuyu. waaw maa di nuyu gars yëpp fi daje yëpp di nuyu mbokku internet yëpp. di nuyu promoteur bi xam nga di nuyu di nuyu waa Mar yëpp xam nga di nuyu sama waa dëkk waa Mar Looc waa Mar Fafako waa Mar Sulu Mar Wanje waa Fimela arrondissement Fimela di nuyu suñu maire bi Karim seen di ko woo si combat yu bu baax xam nga ñu may jàppale yëpp sama pap maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér sama yaay maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla xare ajana ak mboolem jullit muy fekk si foofu yëpp waaw. tey ñu ñëw fii signature contrat indi la sa diggante yow ak Ama seen Junior lan dugal ci combat bi. non combat lu ma si dugal du dara lu dul comme lu li combat yi passé rek waaw parce que combat bi gars yi ñuy naan combat bi risque laa jël combat bi du risque xam nga mais man dara nekku risque si man parce que lii yëpp tàmm naa ko parce que <clears throat> lu ma jaaxal du Eumeu Sène junior xëy na maa ngi koy sant nag ndax euh, bu ko neexoon mu ne du bëre man man maa ngi koy ñaanal bu baax mais ki ma war a téye du moom yàlla xam na loolu ki ma war a teye du Eumeu Sène junior fi ma teg sama bopp du si moom mais maa ngi koy ñaana tamit. yàlla may ko gudd fan ak wér ba bés ba yàlla may ma ndam waaw di nuyu tamit sama grand Pape Sarr parce que sept mois billaahi wal kitaab bi mosuma bàyyi chaque jour amul façon adversaire bu mu ma joxul bu mu demee ba si digg bi mu yàqu ba bi yàlla dogal xam mu taxawal ko maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu Jimbo di nuyu grand Alain xam di nuyu Piso ñoom Jogoy maa ngi nuyu bu baax parce que sonn nañ si trop voilà. da nga bëreeg poids lourd euh, muy Pape Yékini moom mu bëreek Bour Sine yéen ñaar ku ñoom ñaar ku ci nekk boo xoolee seen dayo euh, mun naa ne ci làmb yow ak Pape Yékini yéen a tolloo mais Bour Sine yow ak Bour Sine moom ak Bour Sine Bour Sine a ko xaw a sut te yow nga sut ko gis nga li mu bëreeg Bour Sine est-ce que yow ñeme ngaa taxaw xeexa moom ndax moom waat na ni komba bi lu mu la jaral benn jaral na ko fukk. déggoo li ma la xanaa man dañ maa yoon yaa xamte ma billaahi wa samay mbokk benn engagement loo xamante ne risque la si man te sama mbokk taagu ñeme yéeguñ ko kon tey ma ne la kii dara nekku si réew Boursin ba mu mën a bëreel ba mu naan risque man maa ko mën fuuf Boursin fu mu jógee nag kii euh, Eumeu Sène fu mu jóge si limousine ba si Boursin ku mu si ku ma si koo ma si tegal ma daan ko kon tey moom moom si boppam si ndey mbili moom jaaxaluma. su ma déggee ni ngay wax dafa mel ni danga ngaa xeeb euh, Eumeu Junior da nga koy da nga koy minimiser daal. non du question minimiser dama bëgg dama la bëgg woon ne moom du moom moo ma war a baare sérieusement billaahi wal li may wax sama xol laa ko tibbee du moom moo ma war a baare moom dama koy sant rek di ko gërëm billaahi wal kitaab ndax lu mu def nii ndax mais moom dama lay wax li ne sama xol moom du moom moo ma war a téye fi ma teg sama bët du si moom séeréer dama lay na yoral bor chaque jour ma wax la ko. billaay walaay kon dégg naa wax ji mooy yaa ko dàq xeex yaa ko dàq bëre yaa ko mën bu arbitre ne prix nga dox ci ko am def ko benn weer fépp fu woo maa ko fa dàq billaay wala lu may compétir du ko compétir li may bëreex nekkul si moom bëre bi nekk si man nekkul si moom ndaamala rek dama koy téye rek jóg mu lang tànk yi lang ma yóbbu benn bi mën na bëre sax mais dama koy téye rek su ma téye xama jóg rek day tànk yi dañuy bugg di lang quoi ma bale benn bi rek libéré gars yi ñeme ngaa taxaw moom samp jaaga xeex ak moom nee na moom Eumeu seen moo ne ko amul benn mbër bu ñemee dox sa kaw euh, ci kaw mu neex la yow mbër mu dox sa kaw rek yow la neex. non ñu ko doon wax yëpp sax dañoo ñëw rek jéebalu. billaay walaay képp kuy wax ne Calme Ndour su ma taxawee moom ñemewul dogal boppam bu arbitre sifflé yow yaay nekk muus bi. billaay walaay bu arbitre sifflé keneen ngay doon sama kanam mais du nekk yow yaa doon wax ak man signature bi billaay walaay fit bi nekk si man nekkul si moom li ma sañ a def sañu koo def. xam mooy sa avance moom euh, yàgg na ci làmb ji koo nekkal mu ndóor mu ne lii euh, xaw ma sa problème mu adversaire yow yaay taamu xaw ma mbëri yee lay daw mais fi mu toll nii moom am nga avance boo xam ne xamoo foo ko yekkale. waaw am problème man wax naa man dara diisul si man lii diisul si man diis na si gars yi nag si xelu nit ñi parce que lu lu tax ñu diis moo ma raw si làmb moo ma raw parce que loolu moo tax mu diis si gars yi mais si mën a bëre wala nekku si xama moo ma dàq bëre moo ma dàq xeex non moo ma raw si làmb moo tax mu diis si gars yi mais nekku si mu bëre waaw. kanam tuuti xam naa dina leer yéen ñaar dina wax sànni la nga wax delloo. waaw amul problème affaire yi moom moom moom li ma la wax sànq rek dama koy nuyu rek di ko ziar parce que di kontaan si moom lu ndax lu mu def nii parce que sens bu ma may nii ma c'est trop rare koo xamante ne xam kii nañ ma ko mooy loolu. parce que ay mbor yu bëri yu ay ponkal jox nañ ko samay avance na ko nanguwul mais man tamit dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal tamit lu mu def nii xam kontaan naa si bu baax. marqué tey ngay taseeg ndaanaan ndax duñ la jay bëgg lu la neex jàkkaarloo yow dañ lay wax dëgg bi ama seen junior nekk ndaanaan ku li fadri nga marqué say empreinte yow it nga nekk ci yoon tey ngay bëreex moom seen làmb yéen ñaar fan la lay yóbbu nga am victoire ci ama seen non loolu tax ma lay naan moom lu tax ma koy sant ndax lu mu def parce que man champi moom champion bu mag la parce que boo gisee fu mu jógee parce que defe naa cinq victoire la tegle parce que defe naa jaay nañ daan ñoom général Malika xam nga ñoom limousine ay mbër yu bëri daal xam nga comme bu ñëwee waaw ay ndaanaan yu bari la daan tey tey bursin bu mu daan proposé nañ ma ko bursin ne moo ma la moo ma raw si làmb kon tey su ma ko jëlee tey ba yàlla may ma si ndam kon tey ñooñ yëpp xoolatuma leen kon tamit combat combat maak moom daal am na njariñ si man quoi te am na fu ma yóbbu si bari waaw sama buntu làmb la sa laa mën a wax waaw. bu si def yàlla yàlla bu loolu am sax mais xam naa ne moom loolu du am daal loolu du am incha allahu rabi waaw. no euh, euh, non man moom mbër bu ma mënta bëreel moom dama lay jox cër respecté la ba jour combat ba xam nga samay supporters moom xam nañ ma xam nañ lu ma capable waaw su ma leen buñ ma gisee nii rek jour open press wala euh, balaa combat yi cinq jours avant combat bi xam nañ man lu ma war a def. waaw parce que am nañ confiance si man yàgg nañ ma seetaan mbapat bi xam nga xam nañ lu ma capable amul mbër bu ma jaaxal boo mën a nekk poids lourd noo mën a mel man amul mbër bu ma jaaxal kon tey samay supporters xam nañ ma xam nañ xam naa leen kon dama leen di wax rek ñoom nañ dolli mobilisation bi rek si combat bi yàlla may ñu jam ñu teel ma teel leen a ndax moom suñu waa dëkk tamit fu ñu jógee dafa sori kon waruma nekk si biir làmb ji di léwétoo léwétoo bu dul jeex kon dama koy jàpp rek teel a leen waaw wala mystique bi dafa bëri wala la moo tax sa combat bu taxee ba lii rek après mu daal di yàqu quoi. billaay walaay man awma sa mystique. yàlla xam na c'est que xëy na mbër boo nekkee si dynamique di daan di daan di daan parce que dama koy andi benn exemple rek sama grand pakala lii daloon na ko xam nga muy daan di daan ñu naan pakala dafa bëri mystique fakala dafa bëri mystique boo nekkee si dynamique di daan gars yi dañuy naan kii dafa bëri gàllaaj dafa bari gars te fekk na yàlla moo lay suturaal ngay daan comprendre nga mais gars yi dañoo war a bàyyi loolu ñu yëpp ay xale lañu ñun ñoo war a dundal làmb comprendre nga mais loolu dañ ma koy kii rek lancer appel ci gars yi ñuy bàyyi loolu xel làmb du question ay mystique mbër dina fi andi ay tonu gàllaaj ñu ñëw ñu door ko mu daanu Bombardier wax na loolu fii ba sonn waaw kon xam nga gàllaaj deuxième la si làmb deuxième la ci lamb waaw sama combat yi mujjee yaaku man ak limousine la waaw parce que maak limousine ak euh, ndongolo limousine moom maak moom ñu waroon a bëree nii nii journée bii mais xam na rek mooy loolu xam waaw Ngel jon waaw amoon nañ suñu combat ma moom mais gis nga mooy loolu boobu yaaku waaw non boobu moom si man la yaakoo du ma fen quoi si man la yaakoo non daw ma sax man maa maa bëgguloon combat bi <laughs> ma xarit man du ma daw si làmb bilaay mais non dama xam ne te xam ne man daan ko yóbbu fen fenn sérieux oh, du du ma xool làmb man dama koy man maay wax ne man waa lu ma man maay wax ne. promoteur bu ma mën a signal combat na dem laaj mbóor bi mu dem si ay mbokam xool ba ñu ne ko yaa moom victoire nga door a ñëw ma signé nangu billaay bu bees baa ma jàpp la daan la non man daan ko yóbbu ma fenn sérieusement damay gën a damay gës dugg si kàmb bi rek waaw. waaw. salaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare tey nag ñoo ngi fii Maristes la xaw ma yaraax en tout daal ñu ngi runkum daje. fi lañ nekk nii restaurant la ñu nekk di yëngu ci lu baree baree bare ci loo xamante ne rek mën naa doxal Sénégal waa rent DKR taxawal beneen combat ci komba yi nga xamante ne taxawaloon nañ ko ñu ñëw dolli ko lii yëpp ci benn journée bi rek taxawal nañ nekkuréelu Marley taxawal nañ Malick Ndiaye 37 fou ak bu Siteu taxawal nañ mobile Bour Sine waaye taxawalaat nañ tey beneen Kool Pape Thiam taxawal nañ ko waaye tey ñu ngi taxawalaat beneen booy bi nu mu sax. Calme Ndour Grand Mbagnick ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène junior loolu yëpp ci benn journée bi la ñu nekk ay promoteurs yoo xamante ay xale lañ waaye tamit ay ndaw lañ ay ay gan lañ ci làmb kon yaakaar naa ne instant bi jot na képp ko nga xamante ne tey danga yor micro wala nga yor caméra rek nga ñëw jàppale leen ci seen journée boobu noonu ndax ñu réussir ko loolu lañ leen di ñaanal te yaakaar naa ne Sénégal yëpp amateur yëpp loolu lañ leen di ñaanal Calme Ndour nag lañ xamante ne moom mooy Eumeu Sène junior Pape sar moo ngi toog moom mi nga xamante ne moom mooy seen coordinateur ak ki nga xamante ne moom mooy Jimbo Alain mu ngi France Lutte TV ñoo ngi fi ak Bawol TV wasaare làmb ndax mu ma tuddu ñëpp moom tey ñëpp mer wasaare làmb SBTV ak kan Sénégal Buzz Lora Buzz mais damay nuyu tamit ki nga xamante ne tey moo fi teewal promoteur bi balaa muy ñëw ci ñaari mbër yi di Alain par ñëw ci ñaari mbëri yi def ko seen affiche bu saf sàpp xeex rek laa bugg ngeen def ko fii nag Alain. bisimilah jege si nga nuyu mbokk internet jumbo damaa jum jumbo benn la rek yéen daal yéen a bokk ndey ak maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. salaamaaleykum mbooloo bi fi teew maa leen di nuyu si seen teewaay toujours di continuer ci euh, suñu yoon bu ñu tracé woon ci départ rek à savoir faire une journée de la fête de la lutte tëggaloo xamante ne nii. ci benn journée nga def ci dix grands mooy suñu objectif. te alhamdulilah yàlla mu ngi ci sutural ba daanaka ñu ngi ci cappaandoo bi. xanaa di ñaan yàlla mu àggalal ñu ko jàmm ak salaam. bu ci yaakaaru kenn tas. nambar yëpp ànd ak wér journée bi neex làmb daal di feetu. ñi ngeen tëgg yëpp ay mbëru grand combat la lan mooy objectif bi a am ay marchandises yoo xamante ne war ngeen ko siiwal wala da ngeen a làmb galaa fi doon am comme ni ko lig moo leen tax a jóg wala dafa am a xam nga ci yoo xamante waaw mais xam nga tey jii làmb dafa la yenn événement yi léegi da ngay gis benn journée boo xam ne benn grand combat rek moo ci am. Mm-hmm. lu ci des yëpp ay combat yu pas yu wayadi mais yu amateurs yi xaarul la. Mm-hmm. ñun dañoo bëgg journée boo xam ne ne ku dagg biyam pour seetaan si mbërëm bu làmb ji bu bërëm bëree ba pare dina ko jaral mu toog ndax combat yi daax combat mbërëm yi ngi ci kanam mm-hmm. journée bu neex quoi maanaam nga dagg sa billet 2000 sang sa toog mu jar ko nga seetaan ay jël premier ba dixième combat lépp a toj. loolu la ñu bëgg làmb dekkiwaat ñiy bëgg a rey làmba ñu ne woon làmb deewul suñu cosaan la ñoo ko moom. lu ñu mun a def pour làmb ji dox journée bi neex lu mu laaj lañ ko def incha allahu rabbi. non tamit àdduna tepp tepp gën yuréet nag da ngay def nànk nag yow bu gaa xamee foo jëm doo àgg làmb ji neex na dëgg la mais daa bëri galgal de. làmb euh, boo nekkul ci biir doo xam ne ci biir. commencé ngeen dund gargaar la ilaha lii nag bu ci yàlla àndul woon tey du sotti. ama hmm. seen junior ngi nii dama bàyyi ma fen ñu ko xàddiloo bari nañ lool dégluwu ci kenn ndax jox nañu kàddu gor ak gor. Hmm. kal moom waxatuma ko parce que bañ jubóowee moom boobu suñu premier journée sax tax suñu premier combat sax taxawagul. Hmm. mais dara yombul ci àdduna léegi. est-ce que ay jàppale xamante ne pare nañ léegi loolu loolu mooy deuxième phase du liggéey bi. lu gënoon am solo mooy taxawal ay affiches yu alléchantes yoo xamante ne ni dina neex amateurs yi. deuxième xam nga tamit nit ki boo ko seetee ne ko lii mooy sama produit boo ko wanee lu rafet mu jaral ko mu def ci alalam. ñu xool nu ñuy lëkkaloo ci liggéey mu gis ci boppam ñu gis ci suñu bopp. incha allah rabbi. am na di nuyu ñëpp di la nuyu di nuyu si di fekk yëpp ak seen association bi ñu ngi koy rafetlu nag di nuyu jimboo di nuyu waa Rent Dakar yëpp di nuyu Alain. di nuyu calme di di nuyu kii nag Eumeu Sène junior bi bu baax a baax a baax noonu moo tax ma ne dama koy nuyu bu baax a baax huit mois laa doon utal kii combat dégg nga huit mois ak presque moom laa njëkk utal sax ni ne ko réel tey kon kii bu ko jëlee tey damay gërëm Eumeu seen bi maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax kii tamit heure bu nekk la ma yee billaahi sonnal na ma torop bi mu toll lii moom lii bu paree mun naa nelaw sax semaine parce que sonnal na ma torop billaahi wallaahi cinq heures du matin trois heures bu nekk la ma woo billaahi utal ma adversaire bi combat bi taxawee dama ko nax ne ko Mbaye Guèye Junior lañ la utal bëgguñu ko woon sa wax sax Eumeu Sène Junior bii la bi kombaa bi taxawee man Alain moo ko woo nekk ba France ne ko sa combat ak Mbaye Guèye Junior taxaw na xam nga waaw may nuyu waale nag ménagère am muy Matar Ndiaye xam nga di rafetlu liggéeyam bu baax a baax di nuyu euh, bëgg fàllu waaw yéen daal li li ma waroon wax yëpp jimboo wax na ko aw ma leneen lu ma si wax lu kontaan xam nga di woo population Sénégal yëpp ñu ñëw jàppale ñu di woo promoteur yëpp ñëw ñu ñëw teg ñu loxo tamit jàppale ñu xeebuñu si kenn muy ménager yi di promoteurs yi ñu ngi siy woo ñëpp ñu ñëw jàppale ma <coughs> ñu may woon ak waa Pikine ah sa am naa bés de waaw dama doon sonn ci seen bés ñu ñëw feesalal ma sama koñ waxuma arène mais sama koñ may woo président ASC yëpp liñ ma diggoon nañ ko def nee nañ ma si jouru làmb ji ku si nekk si ñoom président ASC yi vingt quatre président yëpp ku si nekk dina jënd cent billets solal seen ASC mayo yu bokkul ak ay supporteru mbëri ñooñu moom samay nit lañu maa ngi leen di wax loolu ñu ma dig nañ ma ko defal parce que tamit tey damaa bëggul man tamit ñu fay ma waaw léegi nag jóge naa ci phase boobu topp mbër tey maa ngi ci lii kon tey kon nag tey nañ jóg fay naar bi xoromam ma ci woo ñëpp di ci woo waa Pikine yëpp di ci woo diaspora bi waa dix-huitième bëgg naa ñoom ñëpp ñu ñëw taxawuma jàppale ma waaw maa ngi gërëm ñépp di di nuyu ñëpp. jërëjëf. Calme maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa lay nuyu Lamine xam nga di nuyu mbokk internet yi nekk fii yëpp. di nuyu waa Sénégal ñëpp. waaw di nuyu waa Kër Cheikh na Cheikh Sadbou. di nuyu suñu xalif général Cheikh Aya ulu Cheikh Talibou ya ulu Cheikh na Cheikh Saad bu di nuyu sama sëriñ Serif Aliwali ulu Cheikh bu naan doomu Cheikh Talibou ya doomu Cheikh na Cheikh Saad bu maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax mu ñaanal ma jàppale ma comme ni mu ko daan defee saa su ne. Mm. xam nga di nuyu waa Mar Fafako waa Mar Sulu Mar Lodj Île de Mar yëpp maa leen nuyu. xam nga sama grand yi nekk foofu yëpp Mar Lodj ñoom grand Daouda xam nga ñoom Ousmane Kadi xam nga ñoom Ousmane Ndong ñoom Faali xam nga waaw maa ngi leen nuyu bu baax daal di loolu woo si combat bi waa Ndangaan waa Fimela di nuyu suñu maire bi nag Karim Sène gis naa nu may jàppale bu baax sonn na si man parce que sama combat bu nekk lu mu siy def rek man munu ko sama mbokk munu ko waaw maa ngi koy nuyu baax di ko woo si kombaa bi waaw xam nga ki waaw ama xam naa ko xam ci moom xam naa ko ndaanaan la ndaanaan la bu baax te nit ku baax la waxuma mais nit ku baax la rek ndax xam lu tax maa nit ku baax la ndax lu mu def nii parce que Pape Sarr nee na huit mois mu ngi nii ñu may wutal adversaire moom mu jël risque jàppale ma kon man dama koy nuyu di ko ziar xama di ko kontaan si moom di ko naan lu mu def maa ngi koy ñaanal yàlla daal ma yàlla may ko gudd fan ba bés ba yàlla may ma ndam si kawam. su ma yëgoon dama lay nuyu ba pare nga ñëw directement ci li mu wax risque yi nga jël ni da ngaa jël risque jël ko mi ngi naan la. seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur sant sama sëriñ sëñ Mor Abdoulaye Fall Ndar di ñaan yàlla yokk leeram te tas na ci barkeem barki Serap Fall léegi maa lay siyaar di siyaar fi ma jógee waa Géejawaay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Diourbel waa Mbour ak sama mbokk géwél yi. ok am na solo. Ah. da nga waaw moom peut-être loolu la jàpp man dama jël risque mais defuma loo xamante ni moom pour lu ko neex damaa def pour li ma arrangé ma jël bëre. gis nañ ni da nga xeex di nga bëre waaye moom tamit sawar na lool ci xeex di bëre. waaw làmb la dañuy daje ma ak moom kon. ah waaw ah, dañuy daje. ki nga daan lañ ko doon non la bu nga xamante ni amul la tur ñaari benn sens rek maa moom day jógee feeñ jógee fee rek pëm ah. waaw jéem a tàgg lu fay xew waaw dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ci berk serafar mais daal soo bëggee dégg dëgg ah. Modou Mbaye ji la xam ne ne am na combat am na combat de loo wax sax Modou Modou Mbaye ji la xam ne ne am na combat ah, <laughs> maanaam yow dañuy gis say komba au départ ñu ngi bëri dañ lay dañ lay dominer ci xeex bi mais da nga lu combat bi di gën a yàgg ngay gën a nekk ci combat bi kii nag moom mën naa xëy di heures di bëre ba 22 heures da koy dal lu bëree bëree bëri ndax kii da nga dégg foofu. waaw lamb la rek mën nañ faa yegg sa ko mën nañ fa bañ a yegg lu ëpp solo daal mooy man sonn naa ci combat yu métti yi. Ah. yàlla ma daan ko mu dem ñibbi ma ñibbi. amaan nga bu métti. <laughs> Ah, na bañ a métti ah, rek. fa mu jaar ak bu fa jaar ak yow dina métti. non man du ma njaaytin du ma njaaytin du ma ñibbi bëreel ñëpp. Hmm. non non non. du kenn ci ñi daal non man moom li ma ko wax rek man li may wax chaque jour rek suñu waa dëkk fu ñuy jógee dafa sori. Ah. man taluma ay néeg fii di lewetoo dem ko jul jeex li ma ko koy wax mu leer taluma loolu may ñëw rek prib dip rek libéré gars yi billaay walaay. bi nga nar a jëflante. billaay woon aw ma aw ma lu ma si sikki saakam li ma koy waxee nii noonu laa koy defee bu arbitre bi may dal si ko am. lan nga ko ëppale ba mën a dal si ko am. déggoo li ma lépp lépp lépp man lenn la ma ëppale de moo ma raw si làmb fuuf maa ko daa ko bëre ëpp ko doole fuuf du ñaari yoon. est doole daan kii est-ce moo koy daan. doogoo li ma ma ko jaay technique mukk man rus naa bu di ko di ko kii kii technique non non. dafa daan ñu ñu ñu tolloo ak yow de wala ñu ëpp la ñu mu daan yëpp dama lay wax leen ñu mu daan yëpp. ak ñi ko ñu ñu mu daan yëpp ak ñi ko daan. maa leen mën ñoom ñëpp. ci benn tàkkusaan du ma seen morom. Mbaxal bisimilah. général Malick mi ngi ci làmb mi ngi ci dama ko ñette ñette teg ko sadik waaw mu jébalu ma dem ñibbi non même pas sadik sax mais lamb la dañuy wax làmb la quoi dañuy waxtaan dañuy waxtaan def ko prib dip lu leer laa lay wax voilà prib dip laa ko def Iba Mar kii bëri dóor la ko déggoole man man daan naa ko mbapat ñaari yoon lik Nicolas Mbour final ko Nicolas Mbour ak fii nii Ndakaaru fii lamb la maag moom dañoo daje ah. moom samay adversaire bëriwul ak ñoom ay adversaire bëréewu ma ak ñoom man ak moom ñooy bëre Calme Ndour ak Eum Junior le jour ji man ak yow ñooy def rak amul leneen luy ne si biir làmb ji damay runkum daje amul leneen luy ne si biir làmb ji nee na yow ñi nga daan ak ñi daan ñëpp moo leen man benn tàkk su su souvent damay dégg ñuy wax ne man mag la dama koy dégg ñoom ci seen ay làmmiñ man mag laa am jom bari barki Serafal moo tax ma teel am tur man bi may bëri arène sax sama 18 matul j'ai 22 12 mois 88 mag yow ma ko loo extraordinaire ay génération lañ man ak yow le jour si champion Mourou Mbaye xam ne am nga combat waxuma la caaxaan. xanaa kii mi ngi lay napp rek yow. <laughs> yow comprendre de man du ma boleeg nit. ah di naan kii maa mag sax sama pièce a ngi nii 1er janvier 93 laa judd. Ah. mosuma def jugement mu ngi nii. sama pièce a ngi nii. su dee déglu ma su déggoo li ma la xanaa su dee jom su dee jom. maa ko ëpp jom fuuf yaa may dégg bu dee mën a bëre maa ko ko dàq bu dee mboolo maa ko ko ëpp fuuf bu dee jàppale maa ko ëpp jàppale. maa ko ëpp maa ko mën maa ko mën ambiance fuuf kon man li may wax sa bëriwul moom na na waajal prib dib bi rek. kon mu amul sens ci bi. bilaa walaay moom moom sens bu mu amoon rek def na ko may na sens jeex na. ku man ku dàq bëre man ku man man man. yow luy say sens ci combat jël na lépp jox ko boppam moom moo jël lépp jox ko boppam. mais gars yi ñu la moom moo ëpp lépp de. moom dama wax loolu yow waaw ok nit ku nekk boo doon may sa bopp doo tuuti la léegi yow loolu wax. waaw dégg ma wax rek nit ku nekk soo may sa bopp doo tuutile moom moo ne damay tontu ci li mu ñëw sànq moom moo ne man maa ko mag effectivement man maa ko mag mais mag yow ma ko lu extraordinaire ba dix ans ay génération lañ ba dix ans ay génération lañ maam Cheikh Fall Lamp xam na ne ëpp ma doole su ma ko ëppul doole. xoola maam Cheikh Fall laa la waroon su ma ko ëppul kàttan ëpp ma kattan borom soxna laa j'ai deux gaynde wuy ma barki Cheikh Fall am na combat. ñu may dégg maa koy dégg barki Cheikh Fall am man combat bu ma mën a jommal si àdduna man gisuma ko. combat bu mën a jommal àdduna man gisuma ko man Calme Ndour. billaahi wal kitaab barke na Cheikh Saad bu combat bu mu mën a am si àdduna laaw de mënumaa jommal xam nga lu tax man damaa tarbiyu làmb te sama yoon bi ma nekk ki ma war a baare du yow dëgg la nag may nga ma sens dooy li ma la wax de waaw li la arrangé nga def xaalis moo ñu boole rek nga jël combat bi dégg li ma li arrangé loolu yëpp génn ko ci ah li ma arrangé mayu ma la sens xaalis boole wuñu li ma arrangé laa def neefa te loolu da lay umpoo man li ma arrange waa def de mooy ma la sens de oo ma jot bi maa gën a soxla sens fopp nii nga maa la gën a yitewoo waaw yàgg naa si buntu tefes bi bëgg a dugg si gaal gi tey yeggagu ma fa ok li nga combat bi li la jaral hmm. loolu la ma jaral waaw muy nuyu ñi ma àndal muy Viekan Lorenzo Ibu xam nga ak laay maa leen di siyaar bu baax Babacar suma xarit maa leen di nuyu bu baax a baax a baax mais oo ma jotu may kenn sens pour jeexal never pour jeexal yaa ngi seetaan ay combat pour jeexal yaa ngi seetaan ay combat waaw il paraît que il que bi ñu taxawal suñ combat man ak moom dama amoon jafe-jafe xam kan mooy Calma Ndour hmm? parce su ma leen ma bañ defen xaw ma fii laa xamee kan mooy Calma ñooma ñoo envoyé dañ ma envoyé ay combat am il paraît que trois combats la te actuellement j'ai seize combats dix victoires cinq défaites ma seetaan ay combat am jarul may nekk naan ay combat am bariwul wala bari na mbër la mbër la dañoo war a jëflante man ak moom li am solo mooy que man li may ñaan mooy yàlla may ma dama toj dënam. kan nga daanoon jël bi bi Gris Bordeaux ngi koy ñaanal yàlla suñu borom may ko bu baax a baax baax man damm moo tax sama làmb retard mais tey dañu waroon wax Eumeu Sène junior Boy Niang wala Eumeu Sène junior Ama Baldé. fracture. caxaat caxaat la saa di la fële nga naan Boy Niang. Boy Niang daanu la mbapat. non non du ma la bàyyi nga ñëw ko bu fi naan ay booña yow koy waxal si man ba pare nga naan booña non non bul dugg foofu man instant yi moom man maa ngi nuyu suñu waa écrit bu baax booña daan na ko maa ngi koy non non déggoo ma bu loolu yàgg nañ koo dégg sax déggoo la fekkewu ma ko mais xam nañ ko xam nañ ko yaa may dégg fekkewu ma ko mais xam nañ ko bu baax yaa may dégg maa ngi nuyu père xës mi ànd ak man ak Matar Ndiaye di nuyu père déggoo bu baax di nuyu suñu waa écrit bu baax xama waaw di nuyu suñu waa écrit di nuyu ñoom Zambala xama ñoom ordinateur xam nga gars yi ma bàyyiwuma kenn. waaw tàggoo tàggoo loolu doy sama combat ak Boy Niang xam nga lan la woon. il paraît que Ndeye Ndiaye Tyson moo tegoon xaw ma passeport visa. waaw moog waaw Ibamar. waaw jour boobu man maa ñëw daan favori yëpp peut boobu maa ngi mbab. ba mu bàyyi ko xam nga benn benn géant sa waay sa sa sa lii nga yor dimbali ma ci waay waaw waaw xaaral ba pare euh, jour boobu benn géant moo fa nekk muy Gris Bordeaux numéro 2 bu yàgg ba parce que Serap Fall jour boobu je me rappelle très bien maa ngi jógee woon ci feebar dégg tournoi ma ne damay dem bëre ji parce que musuma am musuma am passeport damay dégg passeport mais damay dem bëre ji hmm. mais dara nekkul ci man bi may dem boo ñaa quart de laa daje ak moom. fàq ko mu rëbb ma jàpp ci loos bi naan arbitre ci daanu na li may wax bu ma ci woree benn baat yàlla bu ma yegg fa mu jëm mu génn ma rotation ma teg fees man sportif laa musuma taxaw fenn di demantir lii ah, mais wax mooy ndox bu ñuy dem si làmb bu ñu tegee fii 10 millions dañuy xalaat ne mosuñoo am 10 millions day mbapati yow xalaat nga ne amoo mosoo am passeport boo da ngay wuti rek dama lay wax comme li ngay xalaat ni li ngay wax nii yëpp li ngay wax ni yëpp amul sance demal dem nga daan na la ñun bu ñuy dem bëre ji 10 millions mosuñoo moo ñu mosuñoo téye 10 millions suñu loxo oh dagal dëgg dama lay wax rek nga fi nga jaar a sori da ngay gore boo ñaa daan nama ma bu naan ay mosuma am passe ma dem ci loolu yëpp amul sens. loolu yëpp amul sens ay bi ngay jaad jaad daan na la man maa ngi ñëpp. xam nga. waaw bàyyi euh, xool lan la ci yokk après ngeen tàggatoo yéen yi seen. non non gis naa drapeau kan la gis naa drapeau kan la. parce que tamit làmb ji il ñu boole ci jigéen yi. loolu laa bëggoon nox jigéen yi ci lañ bokk. kii drapo jigéen la kii drapo kilifa jigéen laa koy def. mu ngi ci mode mu ngi ci restauration mu ngi ci événementiel bàyyi ma taxawagum foofu ah. kii drapo am la ku nekk ci mode la. nekk ci restauration am tour kii ni ñuy waxee nii sama xel dafa dem ci moom te moom laa koy def di gërëm samay partenaires yi nga xam ne nii depuis avant ñuy commence ñu ngi taxaw Rent DKR waxatuñ ko location auto Codagel grossiste en viande Daaru lu lunette borom a ngi ni taxaw mooy Modou ku bëgg ko takk lunette yu nice Daaru Moxti lunette ngay dem mu jox la di gërëm Ablaye Diallo mon ami mon frère de Wakam di gërëm Ousmane Cissé Atlanta di gërëm Jamaïcain di gërëm Lamine Samba di gërëm Pape di gërëm kullu nit koo xamante ne nii accompagné nga ñu ba ñu dooree ba yàlla daf ñu agsi fii tey sant naa ñu fi teew ñëpp yàlla ngeen fi teewaat ci fan yu gàtt ak combat bu gën a neex incha waaw li may tàggatoo mooy woo sama mbokk géwél yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp awma lu leen sut di woo waa Njaareem yëpp yëpp yëpp yëpp ak waa Mbuur suma dëkku yaay di woo aussi waa waa Jilaas ak waa ñaaxar di woo waa jurbel bu baax a baax ak waa boobu maa leen di woo bu baax a baax a baax waaw may woo waa jurbel bu baax a baax waa géeja waaye fàttewu ma leen rawatina waaw lu fa nekk rek na génn incha allah di woo Sidi Diop di ko wax ne ñun mooy suñu lépp Sidi Diop Sidi Diop non Sidi bi may wax jurbel la nekk ah, taalibe la taalibe la donga la ku baax la ñu ngi koy wax ne xam nga carrément mooy suñu Macky Sall mooy suñu Ablaye Wade mooy suñu lépp ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak li muy taxawoo jeunesse su Diourbel bi suñu borom defal ko ci tawfeex bu baax lépp gën a saawoon baawaan di nuyu tamit suma sëriñ suñu Cheikh Bintou Fall maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di nuyu waa kaw Fall ak waa Ndar Fall di nuyu képp ku fi teew maa ngi lay ziar wax ji lépp lu fi ñagas bu fekkee ci man maa ko ci man la jóge maa ngi tuub di jégalu bëgguñu ngeen dem te seen écran yi dara du ngeen am lu nga xamante ni parce ay waaw loolu kenn waxatu ko loolu kenn waxatu ko day amaat incha allah day amaat waa Diourbel dañuy ñëw waa Mbour dañuy ñëw waa Guédiawaye dañuy génn waaw mooy nuyu champion bu baax a baax di ko ne xam nga kontaan si moom làmb moo ñu boole buñ toogee war wax dañuy wax aussi bu ñu waree jëf dañuy jëf yëpp xam nga di ñu fi daje yëpp di nuyu waa Mat Fafa ko xam nga di nuyu ñu may jàppale si kombaar yi di nuyu sama grand Alain maa ngi koy nuyu bu baax xama <laughs> waa di nuyu maire Fimela bi Karim Sène xama di nuyu sama mag Bira xama ak ñoom Dig Fall maa lay nuyu bu baax parce que dafa sonn si man Dig Fall xama di nuyu di ko nuyu di ko nuyu El ak ñoom Faly xama di nuyu waa Mar yëpp di leen woo si combat bi xama foogale séeréer mais simna nun laade ne ɓiy nun xarit nun on ndeb nun grand mbañi ka jega combat anda ifa Eumeu Sène junior mais heɗanuno fof no mbi soutien ndamtam comme no imbituna la fois passé anda in ndam comme xaccando dorando rek xamam jof mbamir parce que warna teye in job ne refe o monsieur junior quoi a jega ma refe na ten kon xaye mais na fop nu ngar ndam jofiyor fop anda wasimo leng bo mbour joal xama bàyyuma kenn surtout ma Jordan maa ngi koy woo si combat bu baax parce que sama grand bu baax la waaw sànq rek mu ma doon woo affaire yooyu wax ak man conseiller ma xam maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñoom buuba assurance xam nga ñëpp bàyyiwuma kenn daal waa Mbour yëpp képp kuy yooyu Mbour Calme Ndour moom ak Joal xam nga di ñaanal sama yaay yàlla ko xare ajjana nuyu nag euh, sama sama yaay day anniversaire bu baax xam nga di ko naan happy laa dëkk waaw. non ngi sama grand moo fa dëkk layti koy nuyu bu baax aussi Leydi maa ngi koy nuyu bu baax xam di ko ñaanal xam nga di ko woo si combat bi tamit muy jàpp comme ni nga koy jàppee chaque jour voilà di nuyu sama yaay nag maman Ndeye Marème foofu la maa ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw noonu la demee am na solo waaw ah. mu ah, leer loolu moo taxoon ma nekk sax décembre. mun naa doon fin décembre mun naa doon début janvier. loolu leer na nañ loolu mooy suñu mbébét en tout cas. loolu am na solo jërëjëf pare bu kenn toog di xaar ba ñu ne ko date bi lii la parce que dépendul suñu. ñi moom daa ni pare nañ ma ñu xam yëpp pare bu soobee yàlla mun naa doon fin décembre mun naa doon janvier loolu la ñaan yàlla. incha allah rabbi kon nañ yëpp pare. yàlla amin